teraanga jooju nag dañ koy sàmm waaye duñ ko sàmm mukk ak ñàkk jom duñ ko sàmm it ak suufe wala ñuy raamal kenn wala ñuy sukkal kenn mu ne waaye nekkatuñ ci jamono joo xam ne dañ naan ee eh, Iran banque leen seeni tànk ñu banque ko wala ñu ne ee eh, yëkkati leen seeni loxo ñu yëkkati ko lu tax mooy dañoo am ay xalaat am ay xel te di ko jariñoo doon ay jullit yoo xam ne lislaam la ñuy bëgg teraangaam waaye lu ñu wane ngëm ci kaw mukk ba noppi di collaborer ak yéefar yi wala ñuy séq ak ñoom loo xam ne jullit yi sax xamaluñu ko loolu nag ana lu tax lu mel ni téere bii di Nahjul Balaaga te muy la voie de l'éloquence bokk na ci li tax ñu mën a taxawal mën a taxawu mën a taxaw itam seen diine ak seenu askan kon bu yàlla waxee loolu kon xikma war naa doon lu nit ki di jëfandikoo war naa doon lu ñuy xam ne lii lu am solo suñu borom kat saa su waxee ne mbir nangam rëy na eh, loolu mat naa bàyyi xel mat naa def it taxaw seetlu asayidul masix alayhi salaam muy Isa moom dafa wax ne alxikma hiya nuuru kulli qalb mu ne xol boo dem la nga fa fekk muy leer loola moom lañuy ñuy tuddee xikma aristo dañ koy wax aristotalis moom nee na lii di xikma mooy bopp bépp xam-xam te nee na mooy njambaanul dégg-dégg te li liy ñore ñu di ko witte ci biir bopp ak xalaat aflaatuun te ñoo ñëpp ñu di ñu yàggoon ci xalaat nee na ñeenti mbir yi ku bëgg a dem wala xeer wu bëgg a dem faaw nga bàyyi ko xel bi ci njëkk te moom la jiital mooy ak xekma muy sagesse ba ca topp mooy al adala la justice ba ca topp mooy al shajaa bravoure ba ca topp mooy euh, al i'tidal yamu wala modération mu wax ne bu ñu toogee mënuñoo xalaat nañ jàpp kon ne nun ay dof lañu nañu jàpp it nañuy pàppar loola nu mu ne su fekkee ne mënuñoo fësal suñu xalaat amuñ jàmbaar buñ ko feeñale kon nañ jàppee suñu bopp ne ay jaami ñeneen lañu muy la ku baax Seex Abdul Ahad waxoon ci ne nit ñu bokk luñ bokk lu ne war nañoo takk seen bopp daf ko ne aw mu ne bu ñu ko defulee day keneen xal set naa jóge feneen dikk moom daf leen ni aw dem jariñoo ji leen bu ñu seetloo nag loolu mooy am ci suñu société yi wala li ci ëpp ki ñuy wax Eagles nee na sagesse mooy lan mooy martaba mi nga xam ne nit ki du ko mën a am mukk li fee demul ba dajale xam-xam bépp bu am njariñ bu nit di jariñoo ki ñuy wax Socrate dañ ko laaj ne ko lu tax ñu tànn la nga doon ki ëpp xam-xamu ma sagesse mu ne waaw li ko waral de mooy man mii may góor soo xam ne nangu naa ne xamu mu ne loolu moo tax